السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انتي نيشان في بالتي في نونا لمبارح زي حالي دي ام بيت تسعة سنين في الفيديو pour ñi nga xamante ne moom bees chaîne leen wax welcome bienvenue abonné leen cliqué leen si cloche boobu ngeen gis vidéo bu ñu doon ko seetaan bu leen fàttee tamit une vidéo c'est très important mbokk yi dañuy ñëw wax si benn sujet bu xamante ne c'est hyper important mooy que Aliou Cissé dafa prolongé jusqu'en 2026 ça veut dire que euh, donc lii di coupe du monde bu fekkee qualifié nañu moo nar a yor suñu équipe et que 2025 coupe d'Afrique bi xam nañ koy organisé fële ca Maroc moo fa nar a nekk donc mu jur débat ñu bëri na erreur bu monumentale donc fédération sénégalaise de football dañoo waroon a bàyyi Aliou Cissé soit contrat am jeex wala ñu dàq ko wala ñu def beneen choix donc ñu bëri ñoo gis ne erreur la donc moom laay jëm a jàngat pour man Aliou Cissé pour man euh, donc jamono bi dàqoon ko c'était compliqué vu six ans yi six mois yi xamante ne fayoo ko salaire c'est hyper compliqué maintenant c'est la première fois que Aliou Cissé ñu jox ko kii ni ñu koy waxatee ñu jox ko objectif atteindre ko maanaam ñu ne ko fii lañ bëgg a yem yemul xam nga donc liñ ko mësa a jot si objectif yëpp daf ko mësa a atteindre lu dul Coupe d'Afrique bi mujj mais Sénégalais yi déception boobu ñu am gisoon nañ ne fallait changer foogu ñu xool euh, beneen entraîneur man demoon naa ba ne posé nañ ma si question ma ne man c'est cinquante cinquante d'un côté je veux un benn entraîneur bu bees bu xamante ne voilà dina andi ay idées yu bees ak génération bu bees parce que c'est la génération ñoom Pape Matar Bamba Dié, Iliman Ndiaye Lamine Camara mi soog a Mamadou Lamine Camara bi xam bëgg na ñëw ilay Camara Noah Fadiga Formose Mendy Arouna Sangaté donc Yvan Diouf tout ça là c'est des jeunes joueurs yu xamante avec un autre ben benen fraîcheur une yeneen philosophie yeneen stratégie yeneen méthode de football avec un autre entraîneur peut-être que doon na nekk lu baax surtout euh, doon na nekk lu baax parce que tey jii boo defoon le choix de changer à l'UCC andi un nouveau entraîneur mën na préparer 2025 et aussi mën na def préparer 2026, coupe du monde boobu ba si échéance coupe coupe d' Afrique bi xamante ne am après Ouganda Kenya lañ koy organiser donc euh, ak kii Tanzanie donc c'est des mu nekkoon ay échange avec beneen souffle doon na lu maintenant le choix euh, de laisser à lui. est ce que erreur bu monumentale la lenn laa leen ne dire naa leen ko wax si coupe d'Afrique Afrique bi ñu xam ñu koy war war nañu si qualifier éliminatoire coupe d' Afrique il n'aura aucun problème pour, pour ce qu'elle fait loolu moom gis naa ko Elimata Coupe du Monde aussi doo gis problème maintenant Aliou Cissé fan nga ko mën a juger commencé woon nañu am Aliou Cissé bu baax bi ñu euh, le match contre Brésil pour man lu baax il maintenant y a les matchs yu xamante ne franchement da ngay am déception le match contre Algérie amical stade le match contre Côte d'Ivoire avec un système bu xamante Tu t'avais besoin de changer qu'un seul joueur pour changer toute l'équipe nga jouer pendant 120 vingt minutes Le système pour xamante képp ku xam football ku xamul football xam na ne boobu Aliou Cissé dafa juum carrément donc on avait besoin de changer avec un autre style parce que bu ñu àndoon un entraîneur bu bees les Kouyaté les Gana les Diena Agi dina tabax beneen équipe même si c'est vrai que Kouyaté Gana Gueye mën nañu accompagner les plus jeunes mais on a besoin d'un souffle nouveau lu bees mais nag man gis naa ne bu erreur quoi le fait que toog mu toog fi mënul nekk erreur vu que euh, on va tout faire pour Maroc mu jël Coupe d'Afrique parce que ce sera un Coupe d'Afrique bu métti Maroc gis ngeen jël Brahim Diaz renforcé na Sofiane Diop avant ça Il y a tout ça là qui fait que Maroc ak seen entraîneur bi xam nañ ko bay mu toogaat fi pourtant demi-finale coupe du monde la mais dañ ko euh, rester. c'est que lui, Cissé dafa andi une une certaine stabilité dinañ dinañ qualification le fait que nous changé ce c'est pas parce que xamul dara wala dara pour man du côté c'était juste pour nek plus de 7 ans pendant toutes ces années là c'est pas parce que boo fa jógee wala ñu ne la demal wala lenn wala ñeneen on a besoin de changer que yow xamoo dara wala yow amuñu ngar wala ñu wala delluwul ñu njukkal ak ñoo respecté Aliou Cissé Aliou Cissé c'est le meilleur entraîneur sénégalais de tous les temps jusqu'à présent actuellement à l'heure on parle moo leen njëkk a jox coupe d'Afrique donc def na coupe du monde mais man yàggoon naa xam ne Aliou Cissé ak ni ma ko xamee day dem jusqu'en 2026 ku ko xam ku xam Aliou Cissé di nga xam ne la fekk premier coupe du monde mu toog premier tour deuxième coupe du monde mu qualifié jóge si poule yi beneen coupe du monde bi mooy mu dem def mieux que waa 2002 maanaam dem demi final wala mu def ñoom li ñu def dem quart de finale après ça nag laa gisoon na Aliou en 2026 dina changer je pense que Jomaa si xaritam la Jomaa si neen dafa waroon changer mais y a d'autres euh, internationaux sénégalais yu xamante ne dañoo gis ne nañ ko bàyyi mu continuer maintenant nag man lii laa si am propre à ça bu ñu changé woon je suis assez d'accord ci lu bëree bëri si ay arguments yu leer le fait que ñu dis que je vais pas me dire que Sénégal a une taille ñu des suñu football avance je vais pas me dire ça je me dis que rek Aliou Cissé xam nañ ko potentiel de ñu équipe et on va continuer de se qualifier le problème en est que la question qu'on se pose que ça soit euh, Coupe d'Afrique est-ce qu'est-ce qu'on va faire pour prochaine Coupe d'Afrique pour man décision pour l'air la Aliou Cissé dafa ou pas la Coupe d'Afrique 2025 parce qu'après deux essais duñ ko soit on va changer wala mu démissionner soit il gagne la Coupe d'Afrique on voit un coupe de monde nous def exploit à peu près si di euh, c'est la fait en du Sénégal Il ci a wax